dal leen ak jàmm mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax seex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo comme ni gisee noonu ci photo yi naa leen ne Bamba Dieng avenir c'est incertain par rapport boo xoolee bi ñuy jël Coupe d'Afrique xam donc boobu mu ngi Marseille ak yaakaar bi ñu amoon jamono bi carrière fa war a toll démb ngeen match am bu ñu doon set xam nga mënoon ñëw ñëwaat si Gol malheureusement bii yu bëri moom mu doublé dañuy dem deuxième division est-ce que bu fekkee Bamba ou pas ndax boog équipe yi dinañ ñëw taxaw bëgg jëndal moom ak Formose ngeen di gis noonu si photo yi waa Lorient aussi tamit dañoo def investi Formose def si xaalis bu weex pour am Formose am Formose nii xam nga ñoom ñaar ñëpp dañuy wàcc mu nekk seen avenir incertain kenn xamul ëllëg ci biir fan la ñuy nekk ndax dañuy Formose mi daaw rek mu woon deuxième division ndax dafay dellu Bamba Dieng mi ñu doon wax ay Angleterre ay yooyu xam nga ndax dina mën a dem Angleterre ndax beneen équipe française dina ko lii ay question yu xamante ne euh, franchement soxla nañ ci ay réponse mooy mbokk dañ leen jox yeneen xibaar yi xamante ne xew na si si journée bi de donc Etan Mbappé waa lii ñoo ngi def le forcing maanaam rek ku Kylian Mbappé ñoo ngi def le forcing de pour am ko sant yi jamono bi moom rek la ñu bëgg mu nekk benn milieu terrain bu xamante ne ñu bëri ñoo non Mbappé bu demee xam nga booy bi est dina jot a parce que tour bi rek diis na ba pare def yenn yenn prestation au très haut niveau c'est compliqué bu ñu mais yow sa doom fan lay football déwén quoi xam ngeen ko xam ngeen ñëpp ah, ne ah xam ngeen ko daal donc on va voir ndax la la suite ndax Real Madrid lay dem mais bon normalement Real Madrid lay dem loolu moom je pense que euh, leer na Yoro mooy défenseur boobu ñu naan day dem Real Madrid moom nag dafa xaar ba son Real Madrid ba jamono bii nag moo ngi dem di côté de Paris Saint-Germain on parle nag moo ngi si yoon bi quoi on parle de cinquante millions d'euros défenseur bu baax a ngi nii kii su juste nga sa match Ligue 1 français surtout si grand rendez-vous yi ñoom ak Marseille ñoom ak Paris Saint-Germain ñoom ak Lyon mais il fait de grands grands matchs pour un jeune défenseur. on va voir la suite par li leen si ay Camavinga Tchouaméni loolu la ñuy bañ parce que am ay joueurs yu nekk Ligue 1 wala jënd jeunes yi nekk championnat France yi dem jëndi fene ñooñu dem Real Madrid di ko toj ñi tur benn bi mu wax mooy Tchouaméni Tchouaméni nag dafa forfait pour finale des champions bi ñoom ak Dortmund di ko nag jamono bi ñu ngi wax ne Camavinga moo koy remplacer pour ce match là à voir ndax kii di Ancelotti va changer sa système est-ce que il va mettre réellement kii di kii di euh, Camavinga on va voir la suite seen seen seen i dëkkandoo yi waa Barcelone waa Barcelone ñu xamal ne bëgg nañu stade bi mars 2000 mars 2025 ñu joué si. donc mars deux mille vingt cinq ça veut dire que l' année prochaine stade bu garaaw la ñu am stade Bernabeu garaaw trop mais Barcelone tam garaaw na trop c' est magnifique rien à dire quoi si biir ci biti c' est incroyable euh, yàkkamti nañ ñun ñi xam ay amateur lañ gis stade bu ah, Barcelone bu ñu jegee foofu Barcelone ba tey la ñuy wax de mais Laporte ñu ne ba tey mu ngi bëgg dàq Safi de mais dernier match Barcelone nag gis ngeen que supporter yi nañu wax Xavi Xavi pour mu toog quoi na na toog na toog na toog pourtant peut-être que ñun africains yi regard bu ñu ci am ak ki dëkk Barcelone dëkk fa du peut-être regard benn parce que fii koo laaj dinaan su ku fa la Barcelone dem alors peut-être Bassirou du si ëpp bokk am ñu xam ne ba mu topp peut-être li mu nekk légende du club et tout mais nag ñu la porte ba nii may wax ak yéen ni moo ngi def moo ngi cherché ay moyens maanaam wàllu xaalis moo ko téye moo ko jaaxal nan lay def parce que bo bëggee daax sa bi nga jox xaalis rémunéré ko loolu donc loolu lay bañ donc voilà ben surprise bu ñu dégg tay moy compagnie du côté de Bayern on oh, sait que Thomas Tuchel mom mo mo déclarer né mom du nekati entraîneur bu bu Bayern du coup nag tey sunu taskatu xibaay yi di Allemagne foofu ñu wax né compagnie nek na cible compagnie bi xamante ne peut-être moo yëgal Burnley de championship toj na ko mais euh, Burnley dafa mujj waat championship. xam donc euh, ñëw na Premier League mais c'est catastrophique ba tax na mais nag moom teewul c'est c'est c'est temps de coach même na si wax nag si ay plateau télé yu bëri ne kii c'est un très bon tacticien mais peut-être bon la c'est un peu plus compliqué ak euh, fële ca Angleterre mais daal xam leen ne lii di Manchester United man si maanaam Manchester United lii di Bayern Munich plutôt moo koy bàyyi xel Allemagne googu la ñuy topp pour wax si euh, Florian Wirtz moom la ñu jox meilleur joueur lu mu mérité mais booy bu mën a football booy bu incroyable booy bu mën a fubal maa ngi dégg waa Real yu ko bëgg deux mille vingt cinq avant ça c' était Barcelone en tout cas daal loolu lañ si mën a dégg nag booy bi moom saa saa match yu Leverkusen booy bi talent rek la talent kese la. Karim Benzema xam nga ne dafa signé trois ans di ko tuddee Arabie Saoudite moom selon nag ay taskatu xibaar bi mel ni AS ak Mundo Deportivo foofu ci Espagne ñoo ngi xamale ne dafa xamale ne daal dafa bëgg kii foofu il pas à l'aise kontaanul xam donc du coup ngi wax ni dafa dafa bëgg a jóg on voir nag la suite est-ce que loolu dina ant ou pas donc entraîneur bi wax Solot maanaam entraîneur bi nekk foofu ca Hollande ñëw na Liverpool xam nga beneen information boo xamante ne xam naa ne nañ mais pourtant gars yi nañ si sérieux mooy Araujo waa Aston Villa def priorité pour am ko donc waa Aston Villa xamal ne ñoo ko jël qualification Ligue des Champions donc du coup ñoom nag bëgg nañ kii di Araujo xaw ma noo lañ ko xalaatee ñii di supporter Barcelone ci commentaire may leen ma ko Euh, leneen lu xam lu koy si concernant ñaari yi Marseille gis Marseille ça fait quatre ans que nii nañ toog duñ jouer Europe cette année duñ ko jouer année prochaine plutôt du coup nag wax ne sono gase dafa xamal dirigeant yi ne leen ak c'est des joueurs de talent c'est des de potentiel teel am mais nag ñu ne jamono bi ben ak président Longoria ñoom dañoo bëgg jaay Onana boobu day demaat dellu Correa day dellu Inter Ismaël Sarr ñoo ngi def le tout pour jaay ko ak Ismaïla Sarr dañ koy tëbal moom ak kon dog bi yaa donc pour vous dire que Ismaïla Sarr c'est compliqué du côté de Marseille donc mbokk yi li mu nekkoon ay xibaar yu ma bëggoon partager ak yéen bàyyi leen ci commentaire ngeen wax seen xalaat ak seen gis-gis ma leen wax leen ba beneen sur seen football TV